Ousmane Sonko li nga xamné que modi élection présidentielle à tout 2024 salaamaaleykum sëñ bi ñu lay nuy bu baax baax baax di la ziar ya nga en direct ci Sénégal 5 TV ay wa euh, tour bi naka ak fan euh, la ñuy Pablo ma ngi leen di woote maa ngi Dakar. Pape naka waa Dakar baa ngi si jàmm. waa ñu ngi sant Yalla bu baax baax. alhamdulilah alors ñu lay déglu le moy sa xalat par rapport ak décision bi nga xam ni itam euh batay li nga xamné que modi déjà jël nako ko sax Sénat indiwaat na Ousmane Sonko si liste électorale yi. ah waaw ñun daal sëñ bi. Hmm. Ah, fi mu toll nii daal man xamatuma ñun ci ban ban ban dëkk lañu nekk ko ok. allo euh, wax ji leerul sëñ bi euh, peut-être un problème réseau allo. Euh, leerul allo. allo waaw ñu lay déglu bu baax baax sëñ bi yow rek la déglu. Hmm, doy na waar. waaw vraiment lu lu métti la quoi parce que ñun mënuñu comprendre xamuñu ci ban dëkk la nekk quoi. Hmm. léegi man dama xamul man décision yi jël ci dañ koy teg ci waaw wala jaay doole la wala. Hmm. comprendre mu quoi. waaw mais pourquoi pas man Ousmane Sonko ñu ko jox xanaa fiche de parrainage am. mais liñ ci jublu lépp mooy tardeel Ousmane Sonko. ah. jàpp nañ dañ ko bëgg a tardeel daal. dañ ko dañ ko bëgg a tardeel Ousmane Sonko Sénégal ñoo ko bëgg. waaw comme que Sénégal ñu bëgg mais li ñu bëgg bu ñu xañ. Hmm. dañ organiser élection ñëpp bokk. Hmm. ku gagné élection ñu xam ne yow yaa ko gagné. Hmm. mais ñun loolu lañ bëgg tamit. tey ñaanal Ousmane Sonko nag ñaanal Ousmane Sonko yàlla mi nga xam ne yàlla mooy joxe nguur. yàlla na ko yàlla dénk réew mi.

il n'a pas sa langue dans la poche ñu daan ki na xam ne que moo di Dame ñu daal di xool lan la daal di yëkki euh, justement par rapport ak refus bi na xam ne itam euh, DGE euh, amal na ko si mbiru ki na xam ne que moo di Ousmane Sonko. waaw jërëjëf ñu ngi leen di sant yéen ñëpp ma sant ci coonam te ci suba ba léegi yéen a ngi fi taxaw di xaar lii nga xam ne moom la Sénégal gépp di xaar moom la waa bitim réew yëpp di xaar mooy ndax Ayib Daffé comme tey dafa décidé woon ne day ñëw ci turu ki nga xam ne moo fi yebal di Ousmane Sonko ne ko comme léegi Sénat miy jiite élection yi di organiser élection yi nee na nan ma jox samay fiche Ousmane Sonko ne ko demal nga déposer encore lettre bi mala joxone joxoon la ko don gantal bi yon yaakaar na ni administration bi dina doxal li nga xam mom la yon wax kon lool nak ñun bimu ko yegge ñun wa LACOS moy leader allié du candidat Ousmane Sonko nga xam ne bu so mi ngi fi ak euh, euh, ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk plateforme bi yëpp lim di fàtte ñenn ñi ñu ñëw tey kon pour accompagner Ayib Daffé ànd ak moom ci li nga xam ne moom la ñëw pour teewal Ousmane Sonko comme ni ko candidat yëpp amee bi ñu defee loolu nag ñu gis ni bi ñu yegsee première jafe-jafe bi ñu seetlu mooy bi ñu yegsee capitaine bi ñu fekk dañu dafa jot ay instruction yoo xam ne dañ ne ko nañ xaar bala ñuy xool ndax Ayib Daffé day dugg wala du dugg bi ñu xaaree ab diir lu toll ci fukki waxtu ak juróom ci la ñu ñëw daane Ayib dafe na ñëw euh, bu ko defee ñu recevoir ko waaye buy dugg du àndaale ak huissier bi loolu mooy première jafe-jafe bi ñu constaté parce que huissier moom acteur de la justice kenn amul droit ab huissier ñëw ci biir euh, administration ni day dugg ci kër wala day dugg ci benn bâtiment administratif ñu ne ko doo dugg

nga xam ne ñoom def nañ ñaari communiqué yoo xam sax dañoo wuroo parce que ñaari communiqué yi boo ci liir ak li muy wax ak la beneen bay wax sa bokkul defoon nañ communiqué ñoom waa DG le 20 defaat nañ communiqué le 30 ñu ne ñoom ci seen i communiqué lañ sukkandiku ba mënuñoo jël fiche de parrainage di ko jébbal mandataire Ousmane Sonko. léegi nag loolu ñun jàngat biñ ci war a am ñun sénégalais yi mooy président Macky Sall dafa décider ne Ousmane Sonko di candidat comme tous les autres candidats mu taxaw moom Macky Sall. yoon ni mag Ousmane Sonko am na droit jël ay fiche de parrainage am pour dem parrainer ci comme ñëpp te lii ñuy teg Ousmane Sonko mos ñu koo teg benn sénégalais moom Macky Sall mu ne day taxaw jaay doole ne waa direction générale des élections bu leen jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am kon loolu li nga ciy jàngate mooy ñoom dañ ne woon Ousmane Sonko dañ ko génne woon ci fichier électoral bi ndax dafa am décision de justice léegi ñu ne décision de justice moo ko génne woon ci lan la woon Ah. mooy ci coowal Adji Sarr bi mu fekkewuloon ñu ne ñaari ati kaso yam xaba daan moo tax ñu génne ko ci fichier bi alors bi mos ta wax génne leen Ousmane Sonko waa léegi ñoom bu dee dañoo génne Ousmane Sonko ci fichier électoral bi ndax dañ koo daan ñaari ati kaso yu war a tëdd te ñoom ñu dem jàpp ko te loi bi ni boo ko see jàpp da nga koy attewaat nanguñ koo atte muy première njombe mais beneen bi mooy ñu ne léegi dañ koo génn ci fichier dañ koo daan ñaari ati kaso donc juge moo décidé waa ab juge décidé wat tribunal d'instance bu Ziguinchor non seulement dafa àtte mais mom sax dafa gëna léral mbir mi parce que na ngeen neenal son Ousmane son bonam na ngeen ko dugalaat ci biir fichier électoral malgré lool wa DG daan ñom duñu def lool parce que dañoo def recours lool mo doon sen premier argument premier argument DG mo doon que état Sénégal day waja def recours waxul won sax kala waxe ni cendee na respecter sénégalais parce que le directeur général des élections

xool xam ne Ousmane Sonko dañ koy jaay doole mu ne léegi nanu na na na DG jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage mais malgré ça le directeur général des élections Thiendé la taxaw ne lool du ko def ànd ak ay directeurs bi nga xam ñoo ànd ak moom loolu lañ ciy jàngate ñun mooy kon nous sommes dans une situation de voie de fait mooy jaay doole président Macky Sall day jaay doole taxaw ne Ousmane Sonko du fi nekk candidat parce que bu demee nekk candidat day gagné loolu leer na ñëpp maanaam sénégalais yëpp la leer yi nekk fii ak yi nekk bitim réew que Ousmane Sonko moom la sénégalais yi bëgg dénk seen réew à partir de 2024 Macky Sall benn nit bu ànd ak ay tappalekat ñu taxaw ni kenn du fi bàyyi Ousmane Sonko mu nekk candidat parce que su nekkee candidat day gagné. kon nag seen combat politique ñun ñun suite combat bi am nañu réunion ñun waa Lacoste parce dañ doon xaar tey lan mooy décision bi am si moom le président le euh, la euh, directeur général des élections di décider par rapport ak fiche de parrainage Ousmane Sonko. parce que Macky Sall xam na ni conseil constitutionnel bu Ousmane Sonko jëlee ay fiche de parrainage am conseil constitutionnel mënut a tere Ousmane Sonko mu nekk candidat parce que ñetti dossiers yi ñu koy toppee amu ci benn bu ko mën a tee nekk candidat. amu ci benn boo xam si atte nañ ko ba ca cëppaandaw ba benn bi kenn atteeg ko ci donc ñoom xam nañ ne conseil constitutionnel day valider candidature Ousmane Sonko loolu moo tax ñu wuti pexe ba duñ ko jox fiche de parrainage léegi nag ñun dinañu réunion du man rek may décider lan la ñu war a def mais dinañ teg un plan d' action parce que président Macky Sall ak ñi mu moomuñu réew mi moomuñu ko ñu ko ci seen i waajur doon ñu ko ci seen i maam ba war fee taxaw loo xam ne ñun sénégalais yi ñun ñu leen jox suñu sañ-sañ ak suñu man-man tànn président Macky Sall 2012 pour mu jiite réew mi mu tas yaakaaru sénégalais yi ba xale yi dem di deewi ci géej mu tas yaakaaru sénégalais yi ba sénégalais boo gis xolam dafa jeex ñëpp sëngéem ñu gis ab leader boo xam ne li mu leen wax doy na leen ñu bëgg ko dénk seen réew président Macky Sall ànd ak ay occidentaux ànd ak la France et les états ñu nekk ci ginnaawam di ko dooleel ne ko Ousmane Sonko bu jëlee réew mi musiba la ci ñun ndaxte ni ñuy sàcc seen pétrole ak seen gaz ak seen zircon dootul mën a nekk ni ñuy jaayee seen waa réew dootul mën a nekk ni ñuy jaayee doole di tibb seen alal di ko yóbbu ngeen di gën a ndóol ñun ñuy gën a développé loolu dootul mën a nekk kon fexe leen ba baare goos bi bu goos bi jël réew mi parce que ko jëlee dana doon njariñ pour sénégalais waaye bu ko jëlee du doon njariñ pour ñun européens yi waa léegi nag ñun sénégalais yi ci ñoom la des li ñu wax mooy sénégalais yi ci ñoom la des su sénégalais yi seetaanee ba lii Macky Sall bëgg a def ànd ko ak France ak États-Unis ñu jaay doole Ousmane Sonko mi nga xam ni musta sàcc dërëmu Sénégal taxaw ne man amul dara lo xamna ko def Sénégal pour sama intérêt bop réew mi rek moma ñor ak joyantiwaat wat mi kon su sénégalais yi ba éliminer Ousmane Sonko bu boba ñom seen musiba ak seen toroxtaange lay doon. kon taxawaayu sénégalais moy ñu taxaw tém pour exiger que Ousmane Sonko jël ay fils de parrainage am nek candidat à l'élection alors euh, donc c'était la réaction bu ki nga xam nekk moo di euh, moom itam jàpp na ni itam duñ bàyyi benn yoon ki nga xam nekk moo di la président Macky Sall ànd ak la France ñu daal di wala mën a euh, détruire la candidature bu Ousmane Sonko moom itam dikkaat na exactement si li nga xam nekk moo di lakos lakos nag mooy euh, kuréel gi nga xam ni itam ñoom teg nañ ko euh, nir daal di war a mën daal defendre ki nga xam nekk moo di Ousmane Sonko ndax gis teen fa ku su mel ñoom mi mën a buso ñoom ki nga xam nekk moo di Dame Mbodj et consort daroon ki nga xam ne que euh, mm, Ayib Daffé ni mu daal di jël yooyu da nga xam ne que fiche man i ñoom itam euh, bëgg neen daal di tëral seen ay plan di nga xam ne que d'action euh, dans les jours à venir inshallah mm, dina ci daal di wala mëna daal di dessiner ñu daal di xol exactement ñom lañ leen daal di leen biral ginaaw rek ban daal di li nga xam ne que moo ni ki nga xam ne que moo Ousmane Sonko da nga koy daal di jaay di nga xam ne que moo alors. Euh, damay ñëw si ki nga xam ne que moo di maître Clédor du côté de la régie parce que nous les avocats dañoo génnee benn communiqué euh, ñu daal di li nga xam ne que moo euh, weddi ki n'a xam ne que moo Tanor Thiendella Fall.